aus billah min alseytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaam ala alhaadi alamin sayidina wa maulana mohammadin ilmakin wa ala wa ashaabihi wa man tabium ila yawmi ddin yi nga xam ne ñu ñuy seetaan ñu leen di nuyu nuyób jullit nuyób lislaam mooy di taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam di ndokkeel sëriñ maam Thierno sunu technicien bii nga xam ni moo ñëw ngir jël si waxtaan wi ci ñun xam ngeen ni waxtaan wi li ko sabab mooy bis ni tey ci weeru koor di fukki fan ak juróom ñaar ci la xasootu badrin amee ci la drapeau l'islam taxawe woon ñu sàkk woon ci ñun ñu waxtaan tuuti ci yow ma badrin ak sabab yi ci gën ngaa gàtt tënk incha allah bismillah wal asri inna al la fi xusri illa alladina amanu wa amilu saalihat wa tawasaw bi sabri xaswatu badrin buñ ko bëggee waxtaane dañuy tàmbalee ci màkkatal mukarama sallallahu alayhi yàlla da ko yónni ci biir màkka fekk leen ñuy jaamu laataak uusaak manaataak saalisatal uxra loolu amee sallallahu alayhi yàlla yónni ko muy woote ci biir màkka lu war a man ñetti at yoo xam ne di koy nëbb ba keroog bi suñu borom ne ko fas da bi maa tuumaru na nga siiwal li ma la wooteloo na ko ñëpp dégg fas da mooy xottil mooy siiwalal mooy yëkkatil bi loolu amee nag ci la waa Màkka dogu ci di fitnaal saxaaba yi nga xam ne moo ànd ak ñoom ndax gëmuñu li ñuy tuddee démocrates yi wala démocrate ndax démocratie mooy nit ku ne nekk ci la mu gëm sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam nekk ci li ñu gëm te moo yàlla ji nga xam ne mooy yàlla yi suñu borom rabbi situ jàll nga xam ne moom moo nu bind moom nu ñu ne ko nag loolu du fi amee faw dangay gëm suñu yàlla yi wa ilaa sa bakkan du ko fekke bi nga xam ne dem nañ ci diir bu yàgg nag. sallallahu alayhi wa sallam continué ci lim nekk ba digaloon na sax leen ci saxaaba yi ñu gàddaay dem abasa loolu yóbbee na leen fitna yu metti ak i tiis ak i naqar waaye ñu gis ni islaam islaamiya bi mi ngi gën a jëm kanam rek mi ngi gën a jëm kaw ñu daal di woote benn réunion ci fi ñu tuddee daaru nadwa mooy parlement bi nga xam ne mooy parlemenu xoreysin mu nekkoon seen assemblée bi nga xam ne waxtu wuñ bëggee waxtaane mbir foofa la ñuy dajee ñu di ko tuddee daaru nadwa ba nu fa dajee ñu ni léegi kat mbirum muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaaxal nañu léegi lu ciy pexe ñenn ñi ni nañu ko rey ñii ni nañ ko egsile ñii ni déedéet nañ ko tëj ci barab ba keroog muy faatu ba nga xamante ni nattu nañ seeni wattu lañ mujj a jàpp daal mooy te dëgg-dëgg nañ ko rey ndax buñ ko génnee mën na am kàttan dellu siwaat dal ci suñu kaw rey ñu ñun ñëpp buñ ko tëjee ngir benn xaasim duñ ko seetaan danay ñëw fippu ñu ubbi ko mu dem kon rey rek moo fi sës alxuraan misaal nañu ko wa is bi bika lasina kafaru lisbituuka aw yuqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah walaa wa xayrul maakirin gaa ñaa ngi yem yemle ci nañu la rey wala ñu exilé la wala ñu tëj la fi ba keroog ngay dee ñoom de ña pexe pexe yu ñaaw te bon waaye yàlla moom noppi na ak mbiram loolu mooy sababu gàddaay gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis sun boroom xamal ko ni ko léegi de gaañaa ngi yem yemle ngir rey la léegi nag gàddaayal génnal màkka nga dem madina munawara mu dal di gàddaaya màkka jëm madina xam ngeen ni sallallahu alayhi wa sallam daawul dox digg bëccëg Abubakar toog këram ba yàgg mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa diggu digg bëccëg naaru naaju tàng jër mu waaxu jëm si këram Abubakar dal di jóg ni ah kon de am na lu xew bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ni ko suñu borom digal na ma gàddaay Abubakar jooy ni ko ak a neexoon ma am ndigalal ànd ak yow mu ne ko axakay ñooy ànd Aboubacar dal di waajal ñaari waruwaay ànd ak yonant bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaaya màkka ñëw madinatul munawara li xew ci diggante bi taxumaa jóg li ma tax a jóg mooy xasuutu badrin li ko sabab bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee madinatul wara ba am fa ab diir sun borom rabbi sit jàlla xamal ko ni ko nag yaag sa saxaaba teg nañ leen tiis wu nekk naqar wu nekk balaa bu nekk ca màkkatal mukarama ngeen gàddaay bàyyi fa seeni bien seen alal yëpp des fa léegi nag waa màkka dañoo baaxoo woon jamonoy sedd ak jamonoy tàngaay bi période ñuy dem saam di def li ñuy tuddee rihla te mooy benn karawaan boo xam ne mooy jëndi marchandise foofa ñëw di ko jaay siwaat bi sa jamono ñuy dem siri léegi nag bi yàlla dogalee yonent bi ñëw ma ma Madinatul Munawwara ba am fa ab diir suñ boroom nag xamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waa Màkka de am na benn karawaan bu ñu yebaloon saam mu jëndi woon marchandise karawaan ba wàññiku na bay dellu bis ni tey jox naa leen ndigal ngeen fayu ndax diir ba ngeen nekkee Màkka bu ñu leen dóoree du ngeen fayu bu ñu leen saagaa du ngeen fayu ñu di leen lakk ci naaj yi di leen tër ci ndox yi di leen naq ci ay ndox ñoom saxaaba yi te mooy du faaw yi àndoon ak moom léegi bis ni ki tey nag may naa leen ndigalal fayu am ngeen sañ-sañu dogale njëgg ma nangu ko dappoo ko mooy ngeen nangu ko ngir jël ko ndax seen alal yi ngeen bàyyi màkka moom la suñu borom di wax ni udina lilladina yuxaatiluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadirun digal nañ la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ak say saxaaba ngeen dajeek noon yooyee te mooy waa Màkka seen njëg ma ngeen nangu ko am ngeen ci ndigal bis ni tey ndax ñoom bi ñu leen di génne kat génnewuñu leen ci lu dul ak tooñaangi rek allasina yuxrijuuna min diyaarihim bi xayri xaqin ilaa an yaqulu rabbuna allahu bi ñu leen di génne màkka dara taxul ñu génne leen lu dul benn kàddu rek ngeen waxoonte mooy rabbuna allahu yàlla nu moom yàlla nu moom képp lañ leen sib moom lañ leen meree ba di leen gunduxataal ak di leen tiisal ak naqaral ba ngeen génn màkk bàyyi fa seen i bien kon nag léegi bis ni tey jox naa leen ndigal ngeen dajeek njëgg ma xeex ak ñoom nangu ko suñ borom xamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ñaara maanaam benn di nga dajeek njëgg ma nangu alal ja wa ilaa ña nga xam ne ñoo doon wallu si njëgg ma yore ngànnaay yi muy armée bi nga daje ak ñoom xeex ak ñoom ba not leen dinaa la dimbale ci nga not benn ci ñaar yooyu le loolu mooy sababu nag xaswatu badrin al bi nga xamee ni sallallahu alayhi wa sallam suñ boroom wax na ko loolu xamal ko ni ko am na njëgg mu jógee saam jëm màkk karawaan bu mag la alal ji baree ci nekk sallallahu alayhi wa dafa dal di woo ñaari ñi ñuy tudde ay pays walla nga ni li ñuy tuddee daal maanaam Mm, tajasus wolof di ko wax raj raj mooy agent secret mu dal di wut ñaari agent secret ku ñu wax talxata ibnu ubaydullah ak ku ñu wax saadi ibnu sayd ñoom ñaar la yabal ni leen dem leen ngeen rondal ma njëg moomu bàyyi ko saam jëm màkka ba xam fan lañuy jaar ndax sama boroom jox na ma ndigal mu dal ci seen kaw xeex ak ñoom nangu njëg ma bi nga xamante ni talxata dem na ànd ak Saad bi ñuy dem di rond ba xam fan la njëgg mi jaar ba agsi Badar ñu ni Badar ab teen a fa nekkoon bu ñu agsee Badar ñu daal di wëgg seeni gëléem rond nañ ndeyjoor ak càmmooñ laaj nañ ñiñ fekk foofu ni leen waaw ndax amul dara lu leen romb fii ñu ni déet ñu ne bañ xëyee nekk fi ba tey dara rombaguñu fii ñu dal di waaxu dem toog ca taatu garab gële di xaar di noppalu ba yàgg daal ñu dal di départ jóg dem fekk na booba karawaan bi nga xam ni mooy njëg mi jóge saam Abu Sufyaan moo nekkoon riyaad bi maanaam moo nekkoon njiit la mu nekkoon nit ku yeewu ku am xel muy def su xëyee day daw ay kilomètres yu bari ngir jiitu euh, karawaan bi di seet ba xam ndax dana am dara luy ay agresseur wala ay addukalpe wala yu mel noonu loolu tax na nag bi mu dawalee gëléemam ba agsi teen boobu di Badar mu fekk fa aw nit mu wàcc nuyu leen waaw yéen ci suba ak tey ndax amul ay nit yu ngeen fi gis ñuy doxantu wala ñuy def nangam ñu ne ah kay am na ñaari gaay yoo xam ne ñëw nañ fii wëgg nañ seenu gëléem fii ci teen bi dem toog ca taatu garab gëléem ba yàgg ñu daal di jóg dem ñu waxee loolu Abu Sufyaan daal di waaxu ba ca taatu garab ga fekk gëléem yi waroon ñoom ñoom talxata ak saxd gëléem yi nefere nañ ñu daal di ñëw moom Abu Sufyaan jël nefere yi gëléem gi daal di koy toj bi mu ko tojee mu gis xooxu tàndarma ci biir nefere bi mu ne ah gëléem yi gëléem yi mën Madinatul Munawara la ndax waa mën Madinatul Munawara rek ñoo am tàndarma ju bare ba di koy xonte gëléem kon day xam leen ni Muhammad ak i saxaabaam ñooy préparé pour dal ci suñu kaw pour rey nu pour jël suñu alal bi loolu amee mu daal di wàññiku samp xelu bakkanam moom Abu Sufyaan dal di ñëw woo benn waay bu ñuy wax dam-dam bi mu wooyee dam mu ñëw dam-dam ibnu amr alxafaar yi ñee mu ne ko dama la bëgg a fay alal ju bare bare bare bare nga daal di samp sa xelu bakkan dem màkk xamal aboo jahlin aboo lahab hisaam hisaam xamal leen ni alal ji bu yeexee dara dara dara daañu ko ñàkk ndax muhammad ak i saxaabaam ñu ngay waaj ngir dal ci suñu kaw nangu nañu alal ji ba noppi bi loolu amee dam dam ibnu amr alxafaar yi dal di samp xelu bakkanam moom gëléem gi mu war bi mu ñëwee ba jub màkka dafa dal di wëlbati wan gannaaw gëléem gi maanaam xar kanamam jublu taatu gëléem gi bi mu ñëwee ba ci xuru màkka mu dal di yuuxu fa baatam jote yéen waa Xuraysin yéen rey Xuraysin génn leen lu ngeen gaaw gaaw gaaw perte ngeen seen alal ya Muhammad ak saxaabaam daa ñu rey ñépp jël alal ja fekk na booba am na ku ñuy wax aatika mbàjjonu yonant bi la sallallahu alayhi gént na am benn waay bu ñëw ba ci tund màkka mu taxaw xaacu fu baatam joti di lim ci tàngami màkka yi yow diw yow diw yow diw yow diw génn leen ngeen dem fa ngeen war a dee ji am fa ñetti fan dee fekk leen fa ngeen dee aatika bi mu yeewoo nettali ko abbas abbas ibnu abdul muttalib abbas nettali ko aboo jahlin ak Abu Lahabin Abu Jahlin ne ah yéen giir Bani Haasim daal da ngeen di woote ak yonant ba seen jigéen ñi di woote ak yonant waaye nag lu ma ci waxante damay bàyyi fii ak ñetti fan li wax bu amul danaa bind benn pacte takk ko ci kaaba gi ni mbooleem giir Bani giir yi nekk Màkka giir Bani Haasim ñoo ci dàq fen bi nga xamante ni ñetti fan yi Aatika géntoon gént gi mat na rek ci la dam dam dal di ñëw yuuxu yuuxum googu xamal leen ni bu ngeen yeexee rek Muhammad ak saxaabaam ñu rey eh, kii nangu njëgg ma Abu Sufyaan ñoom bi loolu amee nag waa Màkka daal di daje Abu Jahlin Abu Lahabin naka noonu eh, Ibn Hizaam ñu ne ay ca ku dem na wut ko demal loola tax sax Abu Jahlin ci xare boobu ñëwutoon eh, kii Abu Lahabin xare boobu ñëwutoon lu tax mooy dafa amoon ngànt waaye dafa fay ku ko ñëwal waaye Abu Jahlin moo nekkoon njiital armée boobu jóge Màkka war a na wallu si njëgg ma mook ku ñuy wax Ibn Izam ñoom ñaar ak mbooloom waa Màkka mat nañ junni ak ñetti téeméer daanaka ñu daal di départ ngir wara a wallu si njëgg moomu nga xam ni moom la ñu yabaloon mu demoon saam ba war a wàññi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it fekk booba mi ngi préparé ngir war a dem moom it dogale ji leen bi loolu amee sallallahu alayhi wa sallam ànd lu mat ñetti téeméer ci waa diggante mu muhaajiroon yi ak al ansaari yi lu war ak ñetti téeméer ak fukk ak lu teg mu daal di koy def ñetti eh, ñaari xaaj da koo def li ñuy tuddi nisaam benn organisé maanaam ñaari armée la ko def benn armée bi na Seydina Alin karamallahu wajha moo ko jiite muy armée bi nga xam ne mooy muhaajiroon yi beneen armée bi ci des muy ansaari yoone yi ñoom it ku ñu wax Saad ibnu Muaas moo nekk seen njiit ñu daal di fay déparé nag wuti fi nga xam ne nii mooy Badar bi nga xamante ni ña ngay dem ci yoon wi ba yàlla dogal ñu gis ni njëgg ma raw na ndax boo Sufyaan dafa def ay pexe dal di teggi fi mu xalaat ni bu fa jaaree dana dajeek yonent bi sallallahu alayhi wa mu teggi samp xelu bakkanam dal di rawale njëgg ma dal di dem bi mu demee mu sàkk ndaw yebal ko ni ko dawal nga dabali ma Abu Jahlin ñoom nee leen nañ wàññiku ndax njëgg ma raw na mi ndaw li ñuy wax ko Abu Jahlin Abu Jahlin ne ko wàññikuy lan danaa dem Badar rey fa sama gëléem yi lekk sama ndawal gi naan fa sama sàngara si tëddee fa jigéen ñi soog a ñibbisi bu ma fa Muhammad fekkee ma rey ko bi loolu amee ñu wax wax Abu Jahlin ni duñ wàññiku nañ dem rek am ñu bari ñu wax ne nañ wàññiku Abu Jahlin nañ dem rek ñu daal di ñëw sallallahu alayhi wa sallam moom it ak ñi mu àndal comme bi muy jóg dogale njëgg ma nangu alal ji moo ko taxoon a jóg xeex taxu ko woon a jóg njëgg ma raw na léegi kon lu fi des mooy armée bi borom ngànnaay yi ñëwoon doon gàttandu si njëgg mi mu ne kon nag def li ñuy tuddee tasaawur te alxuraan sant ko ko ne ko wa saawir um fil amri del diisoo eh, saxaaba mu daal tàmbali nag def ak ñoom tasaawur diisoo ak ñoom ne ah bi may jóg day xare taxu maa jóg waaye nag njëgg ma na léegi li fi des mooy armée bi doon wallu si njëg mi kon nag léegi ay ca lu ngeen xam bi loolu amee ku ñu wax miqdaat ibnu amru moo jóg ñu ko yow ki yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam am di lima arakallah fa nahnu maaka wallahi la naqulu laka kama xaalat bannu israil li muusa alayhi ku ñu wax miqdaat ibnu amru daal jóg ñu ko yow ki yoon yow yoon ci yàlla bi defal li la sa boroom sant defal sa xalaat bi la yàlla sant gis nga ñun maa ngi lay waatal ni duñ la wax mukk la nit yi Muusaa waxoon Muusaa alayhi salaatu wasalaam muy waa bani Israayil ñun day ñoo ngi ànd ak yow foo dee ñu dee fa bani Israayil keroog bi leen Muusaa wooyee ci xare te alxuraan dañu ko nettali dañ ko ni fashab anta wa rabbuka fa xaatilaa inna haahunaa xaa'idun demal yaag sa borom ngeen xeex yi ñun xeexuñu ñun fii dañuy toog miqdaad ni yonent bi ñun dañu la wax loolu mukk ñun dañu la wax ni la foo dee ñu dee fa foo ñu dee danaa koy faral di misaal ci lu baree bari ci jamono bii ak politiciens yi dañuy gis sëriñ boo xam ne mbooloo mu bari day topp ci gannaawam euh, di ko jañtal ci kaw état di ko jañtal ci kaw état euh, wan ko ni ko foo dee ñu dee waaye buy état di jàpp sëriñ ba rek ñoom ñëpp ñu daw dellu seeni kër buute naag nag yonent bi ak i saxaabaam ñoom dañ ko ni foo dee ñu dee fa bi loolu amee sallallahu alayhi wa dal di ànd ak saxaaba yi ñu war a dem nag ngir xeexi badar sallallahu alayhi wa sallam suñu borom xamal ko ni ko yaay am ndam ñaari kuréel yi boo ci mën a dajeel yow yaa yow yaay am ndam waysi idakum allahu ihda taifatayn annaha lakum wa na anna xayra saati sawkati takuna lakum lu ci mën a xew ci ñoom ñaar boo dajeek borom armée bi yaay am ndam boo dajeek njëgg ma it yaay am ndam yàlla dogal mu dajeek arme bi bi nga xamee ne ñëw nañ ba si badar dafa sippi ci lu jiitu mi àgg ci teenu badar bi foofu la sippi am benn saxaabi bu ko ne yow ki yàlla yónni ndax lii sa xalaat la wala yàlla la ko yónni mu ne ko ah, sama xalaat rek la mu ne ko ah, lii nag du stratégie guerre xam nga nu ñuy def dañuy dem ba teen bi féete nu gannaaw ñu dox diggante teen bi ak nooni yàlla yi su ko defee lu ñu fi yàgg-yàgg ndox muñ indi dana jeex daañu mar te duñ ñu mën a romb naani ci teen bi su ko defee daañu leen mën a gañe yonent bi naa loolu xalaat la ñu daal di jóg ba weesu teen bi daal kàmpe foofu ñoom armée bi bu ñu fa camper ñu nekk fa ab diir Abu Jahlin ñoom ak Abu Sufyaan ñoom kenn ku ne ci ñoom yàlla dogal na seen kàngam yi ay boroomi alal lañ diirub li ñu nekk Badar bis bu nekk kenn ku ne dana rey fukki gëléem kàngam yooyu ka ca jiitu mooy Abu Jahlin ak ku ñu wax Xutba ibnu Rabia ak ku ñu wax Sayba ak ku ñu wax Hakim ibnu Idam ak ku ñu wax Abbas ibnu Abdul Muttalib ak ku ñu wax Abul Buxtari ak ku ñu wax Samata ibnu Aswad ak ku ñu wax Umayata ibnu Xalaf ak ku ñu wax Nadir ibnu Aris ñooñu ñoo nekkoon kàngami Màkka yi nga xam ni ñoo dirigé woon guerre bi diirub li ñu nekk Badar bis bu nekk kenn ku ne ci ñoom dana rey fukki gëléem bi yàlla dogalee ñu ne fa diir boobu ba nga xamante ni nag léegi xeex rek moo fi sës koor ak koor ah loolu ñu doon dépassé seen alal jooju ngir gàllankoor lislaam suñ borom rabbistu jàlla wax na ci alquran ni inna lasina kafaroo yunfiquuna amwaaluhum li suddu an sabilillahi fa sa yunfiquunaha zuma takuna alayhim xasratan suma yan xalibu suma yan xalibuun axakay gaa ñi nga xam ne dañoo jël seen moyens yëpp di ko dépassé ngir bëgg a lislaam jël seen moyens yëpp di ko dépassé ngir bëgg suufeel lislaam ngir bëgg a suufeel yonent bi ak saxaabaam mu ni suñ borom ni dingeen fab li ngeen am lépp def ko ci ba mu jeex te du tee yàllaa ko yonentam ñooy not ba faw wala fi danañ faral di wax ni euh, kuy laax géej sa sanqal dana jeex te sa laax du far noonu la leen yàlla léeboo ci alxuraan ni kuy laax géej sa sanqal dana jeex te sa laax du far mu xamal leen ni ak lu ngeen mën a dépassé du ngeen am ndam mukk xasuutu badrin mooy xeex bi nga xam ni ci la lislaam amee ndam sallallahu alayhi wa sallam yéefar yi junni lañ ak ñetti téeméer bu tegal jullit ñi di ju ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci lenn ci taarix ñeneen fukk ak quelque rek sa alayhi wa sallam a gis ni mbooloo mii bu ñu dajeek mbooloo mii dana doy waar mu nañ ko mbaaral menn mbaar ñu mbaaral ko mbaar mi mu dugg ci biir di julli ay rakka di naafila di ñaan suñu borom may ndam lislaam may ko victoire di ko woo ci turam wu tedd wu màgg woowu di yaa ayu yaa xayoomu yaa yu yaa xayoomu yaa sal jalaal ikraam mu xam le ni yow suñ borom boo seetaanee ba mbooloo mu néew mi mbooloo mu bari mi faagaagal leen kenn dootu la jaamu ci li ci kaw suuf ndax boo rek ñoo fi nekk ay jullit sallallahu alayhi wa doon na ñaan ba mbubb mi nga euh, maanaam làmbaay gi mu làmbaayu wadd ba Abu Bakrin Sadiq radiyallahu anhu faral ko ko daal di ko koy delloo ni ko noppalal sa bopp suñ borom nangu na sa ñaan bi loolu amee sallallahu alayhi wa sallam fi nga xam ni fi la nekk ci mbaar mi am na ay garde corps yu fi nekkoon doon ko garde ba bi nga xamante ni nag xare bi war naa tàmbali xasootu badrin bari na nit yàlla yi ñëwaat àddina gannaaw sax fekke nañ ko ku ci mel ni sëñ Touba ay tegginam sax mayu ko woon mu wax ni fekke naa badar waaye léebu na ko rek bi mu ne saxidalilaahu bi na ni waahidun min ahli badar yàlla buy konte waa ahlu badar dana ma konte waale man sëñ Tuubaa yàlla buy lim ahlu badar dana ma limaale ndax lu ahlu badar def ba lislaam taxaw sëñ Tuubaa def na lu ni toll ngir lislaam taxaw ahlu badar mooy ñi nga xam ni ba ilaa yow mi saa képp ku julli benn rakkaa wala nga jëf jenn jëf ci lislaam su borom bu nangoo jëf ja dana ko multiplier daal di ciy jox waa ahlu badar lu toll ni tuyaaba yi sa jëf jooju te du wàññi dara ci sa tuyaaba ndax lan ndax ñoom ñoo taxawal lislaam bi yàlla dogalee nag xare bi war a tàmbali li ñuy tuddee al mubaarasatu mooy corps bi loolu amee waa bànni xuraysin euh, boo jaxlin ñoom daal di yebal ñetti nit ndax booba arab yi ni ñuy xeexe mooy ñaar ak ñaar ñaar ak ñaar ñaar ak ñaar noonu la ñuy tàmbali ab xeex waaye du duñ seet seet rek ñëpp tampaloo bala ñoo tampaloo dañuy tàmbalee par ñaar ak ñaar ba ngañaay tàmbali am nag ñu doog a tampaloo bi loolu amee nag ñu génne ñett ci ñoom ku ñu wax ba ak ku ñu wax zayba ak ku ñuy wax walid ibn ba ñoom ñett ñoo jëkk génn bi ñu génnee ñett ci ansaari yoone yi ñoom it daal di génn waaye ñetti ansaari yoon yi ay waxambaane lañ dëgër dëgër bi ñu génnee ki nga xam ni mooy xutba ak ki nga xam ni mooy say ba daal ni leen waaw man antum yéenay ñan ñu ni ko ñun ñu ngi bokk ci giir ansaar ñu ne ah yéen du ngeen suñuy nawle du ngeen suñuy nawle yow Muhammad génneel ci suñuy nawle bu ñu waxee loolu sallallahu alayhi wa sallam daal ni gees ku ñuy wax Xubayd ibnu Aris ni ko yaa Ubayd xum Xubayd ibnu Aris daal di jóg mu daan ni Hamza xum Hamza ibnu al Mutalib Abdul Mutalib daal di jóg mu ni Seydina Aliin xum Seydina Aliin karamallaa wacce daal di jóg ñoom ñett ñoo génn dajeek ñett ñële di xotba ak shayba ak ku ñuy wax walid ibnu xotba bi ñu dajee ñoom ñett ñooñu ni rénkum ñu xeex xeex bu metti nga xam ne mooy Seydina Aliyu daal di rey ki nga xam ne moom la songooloon naka noonu Hamza ibn Abdul Muttalib daal di rey moom it ki songoloon léegi mu des Xutba mu des euh, ki nga xam ne mooy mm, euh, Ubaydullah euh, Ubayd ibnu Haris Ubayd ibnu Haris ki mu doon xeexal xaw na ko gañe ndax gaañ na ko ci tànk ba tànk ba sax dañ ko mujj dagg bi nga xamee ne xeex naa kooku Seydina Alioune rey na ki mu songoloon Hamza rey na ki songoloon ñu wàññi ko nag daal di ñëw sotle ki nga xam ne mooy Ubayd ibnu Haris ñu daal di rey ki mu doon xeexal bi loolu amee nag ci la xeex bi daal di tàmbali nag corps à corps ñoom ñëpp ñu daal di songoo tàmbali jaas yi di dal fett yi di dal suñ borom a ngi misaal ci alquran bi ñuy waqante noonu moom la suñu borom di wax naan wa haadaani xasmaani ixtasamoo fi rabbihim ñoom ñooñu nga xam ne ñu ngi doon waqante yonante bi naan ko génneel suñuy nawle ñii duñ suñuy nawle jamono boobu moom la alquran di nettali léegi nag bi nga xamante ni nii xeex bi tàmbali na ñu daal di corps à ba yàlla dogal suñ boroom yebal lenn ci malaaka yi ñu ñëw wallu yonent bi sallallahu alayhi alfun wa alfun ñu daldi di gañe xeex bi rey ci ñéefar yi ñu bari jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk ay jaam dëgg am na ci jullit ñi ñu belees am na ci ñoom ñu dee waaye jullit ñi ñoo gañe yow ma badrin ñu ko yonent bi digge woon ni ko suñ borom digge woon ni ko danaa la may ndam insha allahu rabbi lu suñ borom di wax naan wala yansuranna allahu man yansuruhu inna allaha xawiyun aziz ñun yàlla ca surat xaj ji ñun yàlla daañu dimbale képp ku ñu dimbale te ñun yàlla ñooy borom kàttan te ku ñu àndal yaay am ndam ndax ñun ñooy xasiis li nga xam ne jullit ñi gañe nañu xare bi ah, daal di nangu bien yi nga xam ne moom lañ amee woon yépp yàlla dogal ñu fekk na booba Abu Jahlin mii ci xare booba la dee Abu Jahlin moom xam ngeen ni am na ku ñuy wax Saad ibn Abi Waqaas bi suuratu Rahmaan wàcce yonent bi ak a neexoon ku dem ca Kaaba ga jàngal waa Màkka suuratu Rahmaan ñu bari ñi mu ñu dem Saad ni nañ ko jox mu dem bi mu demee jàng suuratu Rahmaan Abu Jahlin jàpp ko dóor ko ba dagg nopp bi mu ñëw deret ji di car-car yi jibril alayhi salaam mi ngi topp ci ginnaaw saxd di xaqtaay di ree yonent bi ni yow jibril looy ree kii dem jàng alxuraan yàlla ji ci kanam noonu yàlla yi ñu def ko nii mu ni ko li may ree bisam ñëwagul gis nga saxd mii dana masa fayu ci aboo jahlin te boobu aboo bandi la boo xam ni kenn ñemewu ko waaye ci xare bi bi nga xamante ni nii blessé nañ ko déewagut mi ngi ci biir xare bi di lapp-lapp bi ñu ni Saad ibn na Waqaas dafa fekkoon booba moom it am fu mu nekkoon ba xaw a am tuuti tardement ci xare bi mu ñëwee tombeek xare bi di waaj a jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko duggal ci biir yéefar yi koo gis muy lapp-lappi te déewul nga jekkali ko danga am yoolu badar mu daal di dugg ci biir yéefar yi di wër di wër ba nu gegg ci Abu Jahlin moomee ko dóoroon ba dagg nopp ba daan laa kii Abu Jahlin daan ni ci kaw dënnub Abu Jahlin bi sax du nit ku tuuti la woon koo xam ne nii tànk yi dafa sewoon bopp bi xaw a rëy tuuti ci niñ ko jàngee ci taarix bi loolu amee Abu Jahlin ni ñonkoos ci dënn bi Abu Jahlin ni ko fi mu nekk nii sonn naa te xam naa ni dara mënumaa rey lu dul sama paaka bii rek dara mënumaa rey lu dul sama paaka bi kon baye boo mu wax la li may rey rek waaye nag na nga xam ni yéeg na ki dënnub jàmbaar de bi mu waxee loolu sax da dal di jël paaka bi ni dagg jit bab ba yóbbu ko lenn ci taarix sax dañuy wax naan da ko bëggoon a yanu jibril ba max ko ni ko bopp yéefar kenn du ko yanu mu daal di bënn nab ba takk ci buum diri ko ba ci kanamu yonant bi sallallahu alayhi wasallam ni ko bopp Abu Jahlin a ngi nii sallallahu alayhi wasallam ni ko ah mu ni waaw mu ne ko kon de samam Firawna dee na Abu Jahlin moo doonoon samam na ni Muusa lakkale woon Firaw kii na lakkale woon Muusa alayhi salaam noonu la mu Abu Jahlin lakkale woon mu ni kon samam Firawna dee na bi loolu amee nag jullit ñi gañe nañu xare bi ci gàttal ci tënk ah dal di nangu seeni bien dal di ñëw makkatal mu ko Madinatul Munawwara jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk ñañ jàpp bokk na ci Abbas mii nga xam ne bàyyi la ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwee ñu yeew leen xamal leen ni lii tax du ngeen dooni jaam mooy ngeen jot seen bopp kenn ku ci nekk na nga joxe temps fekk na lu jiitu loolu sallallahu alayhi wa sallam dafa defoon ba tey tasaawur mooy euh, waxtaan ak diisoog saxaaba yi ba xam ban xalaat lañ am ci yéefari màkk yi ñu jàpp ba xam ku mel ni ba Seydina sa Sadiq ñoom ni ah ginnaaw ñoom ay bokk lañ nañ leen laaj njot rek buñ joxee njot ñu bàyyi leen ñu dem biñ agsee ci Seydina Omar Omar ni daal yi Omar moom yéefar xamu ci lul rey rek nañ leen rey bi loolu amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalaatam gën a ànd ci ñu laaj leen njot képp koo xam ne am nga njot nga joxe jot ñu bàyyi la nga dem koo xam ne amoo loo jote sa bopp sallallahu alayhi wa sallam ni la kon nag xale yi Madinatul Munawwara yi na nga leen jàngal bañ fer ijji kenn ku nekk daañu la jox fukki xalel nga jàngal leen ba ñu fer ijji loolu mooy sa jot mooy sam njot nee ñu sax bi alxuraan wàccee Omar la àndal xam le ni yéefar moom rey rek ci jaadu woon moo tax sax Omar yonent bi sallallahu alayhi ko alfaaruq mooy kiy teqale dëgg ak neen bi loolu amee ñu yeew leen ci guddi gi yeew bu mittee mitti abbas ibn abdul muttalib mi ngi wonk rek ci guddi gi ndax xamut loolu waaye yonent bi sallallahu alayhi moom it dereti mbokk gi ak xaqi mbokk ji tax na mënta nelaw am ci saxaaba yi xool ko daal gis ni kii daal mënta nelaw te daa mel ni am na lu ko te nelaw ñu laaj ko ni ko yow ki yàlla yónni lu la te mën a nelaw mu ne xanaa wonki abbaas yi wonki abbaas yi moom ma tee nelaw am benn saxaabi yi bu rocc ku ndànk dem yolomal ko abbas daal di bàyyi wonk yi yonent bi dégg déggatul abbas wonk mu ne ah xanaa abbas benn saxaab yi ni ko man mii maa yolomal yeewam ba mu ne ko kon nag demal yolomal yeewu saxaaba yi ci des yëpp eh, kii eh, yéefar yi ci des yëpp muy noon yi ndax ñoom ñëpp ñoo bokk benn wàccuwaay loolu di wane rek maandu teem gi maandu teem gi nga xam ne moom la maandu ci lépp loo xam ne nii lu mu war a àtte la wala lu mu war a def la wala ci am xaaj ak seen loolu lépp luñ ciy jànge la luñ ciy tiire bi nga xamee ne loolu am na ci la ñu leen laaj njot ñi mën a joxe joxe ñi mënta joxe ñu sas leen ñu jàngal fukki xalel ba ñu fer ijji mu nekk seen njot kon a xare badar ci tënk ci gàtt lii lii la woon Eh, li jullit ñi nag liñ ci mën a jànge mooy fii ñu toll ci jamono daanaka benn jullit nangootu la tuur deretam ngir lislaam foloote benn jullit daanaka nangootu ko bu ñuy song waa kër diw ña ca des di seetaan bu ñuy song waa kër diw ñeneen ña di seetaan te ñoom ñëpp kat ñoo bokk jenn diine ji bokk benn lislaam bi kon nag jullit ñi dañoo war a boolewaat seen bopp fexe ba lislaam jaral leen dara lislaam jaral leen dara waaye fii ñu toll moom li yàlla xam doy na daanaka coow li moo gën a bari jëf ji coow lee gën a bari jëf ji te wallahi saxaaba yooyu keroog ba ñuy dajeek ahlu badrin ba ñuy dajeek yéefari màkka yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bàyyi ay soxnaam bàyyi alalam bàyyi bien sa intérêt personnel yëpp nga bàyyi ko ngir intérêt lislaam loolu bu fekkonte ni jullit ñi fexe nañ ba delloo ci seen xel ba intérêt bi l'islam gënal leen seen intérêt personnel kon lislaam dana gën a am ndam dana gën a am ndam jamono bii nag nga xam ne rawatina xew-xew yi xew ngi coow ci ay jumaa yu ñu war a tëjeeg yu ñu war a tijjeeg yooyu yëpp ñàkk a ànd ak jullit gi rek jullit ñi rek la waaye bu fekkoonte ni bennoo a waroon am na lépp mën nañ ko def te du am benn coow du am benn wax waaye ñàkk bennoo gi rek ak ñàkk diisoo gi moo leen ko yóbbee te alxuraan daf noo santoon ni wa saawir um fil amri mbir yi dee leen ci diisoo dee leen ci diisoo rawatina nag lu tal ni lislaam ñëpp bokk ko bu kenn ku nekk bëgg a wane cëru boppam rek mën na indi muskila teewul nag ñoom bu fekkee ni lenn ci ragal yàllaa ngi ci seen biir yonent bi àtt nañu bu yàgg fa ahti kula si xaq ko nit ñi tolloowuñu tolloowuñu ay daraja tolluwuñu ay melo tolluwuñu ay maqaama tolluwuñu ay gisin tolluwuñu xam-xam seen dara tolluwul kon nag li war a am mooy kenn ku ne ñu jox la sa xaq kenn ku ne nag xam nga la sa morom am ci yow ak la sa morom moom ci yow ak lay xaqam ci yow ku ne xam na ko kon kenn ku yaa fexe war a fexe ba lii sa xaqi morom ci yow nga jox ko ko jëfandikoo addis ba te mooy fa ahti kulla si xaqa xaqahu kon yow Badrin jii nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñaar. ci weeru koor saxaaba yi boole woor ak tuur seen deret ngir lislaam folete ngir lislaam am ndam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli seen barke dolli seen tiraanga dolli seen yërmande dolli seenu mucc ci war may yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moom lañu àndaloon ñun ñi fi desit di topp seen mboor yàlla may nu ndimbal may nu kattan may nu wërsëg wu ñu mën a dundale lislaam wu ñu mën a taxawale lislaam te yàlla rekk tax loolu mooy ci tënk ci badar ñu dellooti di leen ndokkeel di leen ñaanal ci itte ji ngeen def ba ñëw fii ci daara ji ngir taasan kàddu yi ngir rek jullit ñi jariñoo ko yàlla na ko ci yàlla def ah ci koo xam ni benn euh, li ñuy tuddee sabqu lisaan daf maa dal léeg-léeg mu bëgg a wax aafar ni bee beneen bi ci des it ni nga ko xamee euh, yaram wi tax ko wér lool yi ci aju yëpp waaye du tee ñu sant leen gërëm leen ndax yéeri ñu aw yiw rek moo tax ngeen ni nañ leen waxtaanal tuuti ci badar ngir jullit ñi man koo jariñoo kon suñ maam Thierno ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di naan yàlla virus corona bii nga xam ni moo lëmbi addina bi yàlla jëlee ko fi ci mbaaxam ci yërmandeem te yërëm xeetu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam eh, rawatina nag suñ réew mii di Sénégal yàlla na yàlla wërsëgal nu loolu jóge fi faw te dootu fi dellusi te yàlla wóotale nu ko yërmandeem ak barkeem ak tiraangaam suñu borom mën na ko wa maa zaalika alallaahi bi aziiz innaka alaa kulli shay'in qadiir